di leen mastawu yéen journalistes yi ci métit yeeg tolof tolof yi dal seen college yi je crois que on parle souvent des politiques parmi les victimes mais victimes yi gën a bari victimes yi gën a constante mooy yéen ñaata journaliste la jàpp ñaata journaliste la ñuy blessé ñaata journaliste la ñuy maltraité vous restez digne fier et vous assumez merci tout cas nous très fiers de vous ñu massawu leen loolu parce que loolu mooy li am solo nag parce que kenn ëppalewu leen ci li ñuy xeex et vous en payez le prix et il est parfois très lourd et malgré tout lu xew lu am lu ne rek ngeen bokk vraiment bravo à vous tous nu some fiers de ce que vous avez compris que vous ayez compris que démocratie Sénégal yéen it pilier ngeen ci pour mu gën a sax pour mu gën a law donc bravo à may doore suma kàddu nag di massawu ak a jaale jaale suñu wéyjur suñu kilifa yi fi jóge wax nañ ko léegi sëriñ Bekkaay xalif généralu Njaasaan yal na yàlla yokk leeram xare ko àjjana ah di ndokkeel ki nga xam ni moom lañu def xalif te muy soog a toog di jaale aussi imam Bachir di imam ratibu Layène grande mosquée Layène imam Bachir était un homme pieux un homme de dignité qui a vécu dans la réclusion de son fait pour dëddu àdduna c'était une manière pour lui de nous faire comprendre que àdduna bi am na lu fi jarul yenn yi noonu mu dëddoo àdduna ba yàlla teggi ko liggéey modèle la aussi que ni li ñu bokk li nga xam ne ñoo ko moom ku nekk war na ci defar la ko war ca na mu gën a rafet donc di jaale xalif général des Layènes di jaale porte parole bi di jaale njabootam imam Bachir di leen jaale aussi communauté Layène parce que ñi xam communauté boobu xam nañ suñu wayjur mi nga xam ne moo daan jottali kàddu depuis Serigne Ablaye ba léegi Imam Moussa moom it wàcc na liggéey looloo dañ koy mettit lu ak sant yàlla parce que yàlla moom dem moom moo koy décider comme que du ñu tàggu nag te du ñu wax nan la koy defee kañ la koy defee ku mu jël rek dañuy sant yàlla te di ko ñaanal donc Imam Moussa mi nga xam ne moo daan jottali kàddu depuis Serigne Ablaye Thiaw ba léegi te wàcc liggéey yàlla na ko yàlla xare àjjana di jaale ñépp ñi nga xam ne ci lii ñuy dund nag ci mbirum àdduna ci politique bi véritablement ñu ngi ciy ñàkk seeni bakkan ñu ngi ci amee blessure ñoo ngi ci amee tolof tolof ñooñu ñëpp qu'ils comprennent que c'est de vrais sénégalais c'est de vrais démocrates yu xeex ngir seen réew ngi xeex ngir seen askan donc ku nekk ci ñoom muy ñi gaañoo dakaar ñi gaañoo Ziguinchor ku nekk ci ñoom ñoo ngi massawu seeni njaboot seeni i seeni mbokk ak seeni i wax nañ ko léegi jamono bi moo doy waar on n'avait pensé que bi ñuy génn 2011 daañu dundaat li di taxawaat obélisque di xeex nekk fii di xëccoo di wax waxu troisième mandat je crois que ça interpelle tous les politiques man ak sama morom laa ci yemale il faut que nu comprenion ko ñun ñooy jëkk a décrédibiliser suñu bokk parce que dañ naan nit ki du nu mu waxee na mu jëfe dong la saa yu homme politique bëggee dara day wax a wax ba mu tooy su toogee mu mel ni loolu da ko fàtte parce que su fekkoon fàttewuñu 2011 et son cortège de morts de blesser d'emprisonner on ne revivrait pas 2023 ni ñu koy dunde loolu moom mooy li am solo et je crois que c'est ce que nous devons retenir comme principale leçon ci nga xam ni moom la ñu dund actuellement ñu réew et c'est pour ça désolé parce que c'est terrible qu'on en arrive là que nit ñi di dee ka feebar parce que rek troisième mandat mi ngi ñëw parce que rek nit ki wax na bañ a respecté kàddoom c'est vraiment un problème suma kàddu nag du ci gudd dama am rek ñaari message yu ma bëgg a wax bu jëkk bi mooy li ñuy xeex dañ koy xeex pour chacun de nous pour la démocratie parce que ci démocratie kenn amul droit di tànn ñi nga xam ne ñooy daan candidat ak waruñu doon candidat c'est ça qui est nouveau dans le jeu politique sénégalais naan kii dina bokk kii du bokk F24 et tous les démocrates yi ci bokk Yewwi muy ñun ñëpp suñu xeex benn la mooy ñun ñëpp ñooy bokk ñëppay bokk war bokk ñëpp war dem wuti les suffrages des Sénégalais et ça il y a une unanimité de toute la classe politique sénégalaise avec la société civile mooy suñu xeex bu jëkk faut pas nit ñi fàtte loolu ñëpp ñoo war a bokk kenn rek moo warul bokk kenn rek moo warul bokk kenn rek wax nañ leen ko waxaat nañ leen moo ko gën a xam nit ñi Macky Sall donc président Macky Sall rek moo warul bokk moom warul bokk on le criera jamais assez moom warul bokk waxoon na ko ma ni dañ koy fàttali rek la moo xoon di ko fàttali mer gàddu wu 2011 bi defe naa ne suñ ko rappelé loolu lépp dana tax ba xëy na dana dell delloo si xelam donc moom warul bokk ñëpp dañu war bokk Cheikh fàttali na ko léegi les détenus politiques nombre bi ñu am mais c'est exorbitant c'est inacceptable il faut que ñu yeewi leen il faut que ñu libérer leen parce que loolu mooy li am solo lépp loo xam ne day gàllankooru aussi candidature yi parce que xam nga ñëpp bokk déposer candidature ba pare kenn du jàll c'est pas la parenage bi il faut que ñu dindi ko parce que parrainage bi c'est une sélection qui dit pas son nom surtout que les modalités hautes ni muy demee kenn d'accord ci donc question yooyu ñun ñëpp ñoo ci d'accord pour que ñu libérer nag tous les détenus dañu fekkee procès suñu député yi yeew yi vraiment on était triste triste parce que pour la première fois l'hémicycle de l'Assemblée la fa xew nga xam ne dañ ko daan préserver ñu dindi ko parce que su fekkoon principe yi nga xam ne noonu la assemblée doon doxee respecté nañ ko suñu ñaari camarades yooyu duñu dem kaso parce que amuñu droit dem kaso et surtout nag li ci naqadi mooy bi ma déggee ñu naan flagrant délit Habib si daf may tooñ toujours naan PS moo fi inventé flagrant délit continu mais ñëpp xam nañ ni flagrant délit c'est inscrit dans un temps déterminé biñ leen di jàpp ak yóbbu boobu flagrant délit amatu fa jaay doole fa am donc ñoom et tous ces centaines de jeunes garçons et filles et de femmes yi ñu yóbbu kaso dañ leen war a génne loolu mooy li am solo may daaneele ci sama ñaareelu kàddu mooy Yewwi Yewwi Askan Wi on appelle tous les Sénégalais à manifester le 26 li ko indi c'est pas que on n'est pas conscient des enjeux nous sommes mus par la par le respect de la pertinence et de l'opportunité du combat malheureusement dañu am contrainte parce que su doon suñu sago balaa Ousmane Sonko di dem procès ñu def rassemblement boobu loolu la ñu bëggoon moo taxoon ñu def le 19 ñu xalaat ni est-ce que mën nañ ko def fii ak le 22 le 22 la ñuy jugé suñuy député yi soo ko bëggee def le 21 xam nga yàlla délai légaux te am na délai am na euh, férié bi dugg ci donc bala ngaa déposer. ak temps biñ koy étudier malheureusement da ngay weesu le 23 pour que les Sénégalais comprennent que ce qui importe pour nous c'est que soutenir Ousmane Sonko se battre pour qu'il ne soit pas la troisième victime de la liquidation des candidats mooy lu ñor ñun ñëpp amul xàjj amul seen les gens le font franchement sincèrement entièrement pleinement que nul n'en doute et que nul n'en ignore dama bëgg rek nit ñi xam ne lii nga xam ni moom la ñu sumba c'est la démocratie sénégalaise moo ko jar ñun dañuy weesu mais dañu am obligation wu ñii nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw di ñëw ñu lége leen un pays boo xam ne kenn dootu fi xuloo troisième mandat kenn dootu fi wax article quatre-vingt kenn dootu fi tëj journaliste kenn dootu fi tëj politicien te daa ñu fexe ba réew mi naat réew mi dem kanam maa leen gëm leen sax